ngi noonu mbokk internet yi ñu ngi fi nga xam ne nag moom moo di HLM 2 ci côté Brioche Dorée bi ñu taxaw ak ñi nga xam ne ñoo di les habitants des HLM ñu am nag li nga xam ne moom moo di ñaxtu bi nga xam ne ñu ngi koy def wala li nga xam ne moo di naqar bu ñuy dénoncé li nga xam ne moo amoon fii ci manifestation yi nga xam ne moo daal di mujj digganteeg Sonko ak Mame Mbaye Niang ñu ngi taxaw ak ñenn ci ñoom dañuy daal di uh, wax ak ki nga xam ne moom moo di Abdou Aziz Diouf mu daal di uh, wax li nga xam ne moo ko métti ci bis boobee bu ñu paree jëlaat keneen Abdou Aziz nuyu nañ waaw maa ngi leen di fay soxna si. ñu lay nuyu di la ziar. ma leen koy delloo bu baax a baax a baax. gannaaw bi fi manifestation yi amee semaine bi passé gis nañu ne ay dégâts yu bëri am na fii ci seen koñ bi di HLM 2 nan ngeen dundee loolu. waaw tout d'abord ñu ngi nuyu Sénégal yëpp à travers Sénégal ak euh, Dakar Instant euh, fan yi passé manifestation yi bi mu fi amee dafa am yàqte bu ci am ak euh, ak sabotage bu ci nekk mooy ci biir manifestation bi dafa am ay ñoo xam ne dëkkuñu HLM dëkkuñu benn tali ñëw di dugg ci koñ yi di sa dans un premier temps di sànnanteek policiers yi xeer policiers yi bu ñu sànnanteeg policiers yi xeer policiers dañuy sànni lacrymogène lacrymogène yi suñu yaay yi ci suñu mag ñi feebar ñi ci lañuy dem keroog dañu am problème fii bu baree bëri bari bu jógee ci lacrymogène yi ak euh, ak ak ak sànnante xeer yi dafa am ay agression dafa am maanaam dafa am lu ci rax ay agression yu fi am yu metti nit ñi di dajji butigu jàmbur yi ak di këf saagu jàmbur yi ak téléphone jàmbur yi ñun nag loolu ci loolu moo moo mooy suñu mettit loolu mooy suñu doxu ñaxtu loolu la ñu bëgg mu dakk bu dakkul ci Sénégal mais fi ñu dëkk ñun fi ñu dëkk ñoo koy aaral suñu bopp mooy HLM Bentali ñun ñoo koy aaral suñu bopp ay ndaw lañu di lancer un appel à la de police HLM autorités yi fi nekk ñu wax leen ni que loolu ñun ndaw ñi dañoo jël suñuy responsabilité ne loolu dootu fi am ku am looy ñaxtu na nga toog fi nga dëkk nga ñaxtoo ko foofu amaana boo fay ñaxtoo fi nga dëkk li fa war nga fay def li fa warul doo fa def tey bu waa benn doon manifesté wu taal pëna du ñu def naka sudul noonu parce que lu ñu def rek ci ci seen i njaboot lay muñ waa de ko que waa HLM ñun ndaw ñi dañu ne dañuy taxaw bañ loolu bañ yàq bi bañ agression bi agression yi fi am ak lacrymogène yi sonal suñu yaay yi di sonal suñu waa kër yi dañ ko dañuy taxaw ne dakk dañ koy bañ mais est-ce que loolu dina yomb pour ngeen xeex ko parce que bu ñu nee manifestation la plupart Sénégal gi boor bépp lay daal di jaxee comme muy jaxee ni muy jaxe HLM noonu lay jaxee ci yeneen i boor est-ce que dina yomb yéen HLM ngeen ne loolu mën nañ ko dakkal parce que nit ñi dañuy ñëw ak en masse ñëw ak ak doole. loolu moo am kolobaan xam nga lu tax ñu koy dakkal buñ fi seetaanee ba meurtre am fi. moo xam ñu ñu rey manifestant wala ñu rey wala ñu rey policier ñun dañuy am part de responsabilité Colobane looloo fa amoon ñu ci bokk ak ñu ci bokk ñu jël leen yëpp ñóbbu ci kaso bi ñun duñ ko nangu ñun duñu nangu loolu loolu du am dañ ci suñu bakkan lañ ci teg keroog ngeen ko fas yéene résoudre parce que boo nee suñu bakkan ngeen ci teg dafa mel ni boo leen da ngeen di xaar manifestant yi ñëw ngeen di jàmmaarloog ñoom duñu duñu ne manifestant yi mooy defkatulu lu ñaaw yi ñi nga xam ne lu ñaaw moo leen tax a jóg ñooñu dañ leen di xaar. ñii di raas voilà ñooñu dañ leen di xaar luñ ci bañ rek ñun ñu fi dëkk bañ ñu ko fi mooy li ma la wax rek dafa am risque bu bëree bëri bëri bu ñu laal ñun mooy lu am on responsable ba tax na loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ku nekk boo amee li ngay def na nga ko def sa koñ bi nga dëkk na nga ko def sa dëkk bi nga dëkk ñun bu ñu amoon lu ñu metti dañ ko dinañ manifester pacifiquement mais li ñu dul nangu mooy li fi amoon keroog amaat fi répété waat fi ay groupe nit dugg fi def def kii di wër di agressé di wër di agressé di wër di agressé duñ ko nangu ay nit dëkkuñu fi taxaw di sànnante fii policiers yi yi di sànni lacrymogène ci biir koñ bi muy sonal suñu yaay duñ ko nangu ci ñi nga xam ne nag ñoo di say naataango bokk dëkk ci gox bi nga xam ne fii ngay daal di waxee est-ce que am na ñeneen ñu ci mën a sàndiwaat euh, kàddu ci jëf ju ñaaw jooju nga xam ne amoon na fi waaw loolu moom dañ koy ñaawlu quoi maa ngi dëkk usine Bentali man jour boobu loolu bi mu amee maa ngi taxaw suñu bopp koñ ñaari car rapide romb na dugg ci biir koñ bi am ay booy daw song dugg ci car bi fi ma toog mënu ma ko muñ parce que neexul ci xol tamit ni li liggéey ba wàcc dugg ci oto di ñibbi nga ne da nga koy dogaari jël affaire am après maa mujjee obligé jug xaaju man sël sama loxo sax gaañu naa ci ndax dama bagaar ak ñoom gaañu ci après sama yeneen copain bi ñu ko gisee lañ ñëw gën ma dooleel ñun moom waa Bentali moom pare nañ pour lool kuy taal taalal fu la neex bu la neex sax taalal seen kër mais affaire agression bi moom day dàq quoi neexul ci xol tamit ni liggéey ba wàcc yor magasin wala dara nga ñëw bëgg a nangu amul sens quoi ñun loolu la ñuy ñaawlu surtout surtout police HLM tamit dañu war a jàppale quoi parce que Bentali mën naa ne HLM ak Bentali kaaraange bi fi nekk dafa dafa des quoi dafa des. que ci loolu jox dem ngeen ci dox ay jéego ci police bi jéem a gis ki nga xam ne moo di le commissaire pour mu mën leen a aar. mais loolu doxati ñun bentali tali bi muy nekk benn tali dëgg am na suñu benn mag Daawda Xeese lañ koy wax moom jëloon na suñu tuur yi yóbbu police u aselem ne agresseur bu fi nekkati dinañ ko def naka dul noonu après amul suivi ñu ñëw ci sonn tamit bëgg nañ ñu jàppale ñu bon volonté yi tamit jàpp ci mais dara dara dara dara dara. nañu jàppal te yàlla tax sonn nañ ñu fi agressé dëkkuñu fi duñ ko defee seen koñ day ñëw ba ñu jàmm bëgg salteel loolu mënul nekk ñu moom pare nañ pour pour sacrifier suñu bopp quoi. d'accord ban message ngeen di lancer population yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci HLM ak benn tali loo leen di wax. waaw man li ma leen wax daal mooy pour bu benn nit jugee rek defkat yu ñaawtee fi buñ jugee bu benn jugee ñaar jug ne mbooloo yëpp jug xam man rek mënu ma ko faj Aziz munu ko faj kii munu ko faj moom rek ñu ñii rek mun mbooloo mooy doole gars yi tamit dañ lay bàyyi ba nga dugg ci biir tamit ñu commencé rocceeku di seetaan man jour bi may def loolu xaaruma jéem ma woote wàllu dama jug def te jour boobu man bi ma jugee après ñoom daw nañ amuñu fa dara ñu nekk ci car rapide bi am ñëw naan ma jërëjëf seetuma ci loolu quoi dama ciy seet bu doon sama yaay mi ci oto bi wala sama papa wala sama sœur wala koo xamante ni xam naa ko amul chance quoi gars yi nañ dem xëy dem liggéeyi nekk seen président bopp loolu laa am. mais gars yi nee nañ Sénégal kenn dimbaleetul kenn parce que risque boobu nga jël la plupart des Sénégalais dañuy gis nit ñu koy agressé en plein jour kenn du jug kenn du yëkkati jéego parce que liñ ciy daw mooy da ngay sauver nit ba yow ñu mujj la ci lool. waaw mais déggoo li ma la wax mooy maanaam man bi may jug pour def loolu juguma pour am ci félicitation wala dara. dama xool ne waaw bu doon sama sœur moo ci nekk wala sama yaay nekk ci man ba mu jugee man rek après am na ñeneen ñu jug fekk ci bu waa Bentel defee loolu waa HLM def loolu waa Grand Dakar def loolu kon pour man dafay dafay jeex ko mbooloo mooy doole ci biir loolu ab dafa keneen na koo xam ne di ciy sàndiwaat kàddu ci ci coow yi. sëñ bi nuyu nañ la. Eh, soxna ñu lay fay. Euh, tur bi naka la. xeex bi nga xam ne waa population yi dëkk HLM ñu ngi koy daal xeex ak ñi nga xam ne ñoo nekk euh, benn tali di euh, li nga xam ne moo di ñaawteef yi ñuy faral di def di profité ci manifestation euh, di ci dugg yow ban avis nga am ci loolu. lay ziar bu baax di leen jaajëfalaat bu baax di leen masawu coono waaw di ko ñaalu rek parce que yaakaar naa ne ñun ñëpp ay jeunes lañ mm. te man dama gëm ne réew ñi ko war a defar mooy ay jeunes bu ñu nekkee ci gox bi nekk ay jeunes dañu war a xool nan la ñuy def ba amal njëriñ commune bi ñu nekk ak gox bi ñu nekk ba tax na tey man man yàq moom duma ma si du ma ko ñaawlu duma ko rafet rafetlu benn yoon muy kii agressé muy kii am lu ko naqari mu dem di taal muy keneen ka nga xamante ne lépp lu ko naqari da koy dem faj ko si doole man kooku du ma ànd ak moom. parce que damay dama gëm ne nit ki mën nga wax leen naqari ci teg ko ci ay principe nit ñi wuyu la du tee tamit li nga bëgg di nga ko am ba pare te nit ki ngay waxal di xam lan dina xam lan moo la naqari di ko ñaawlu ba fu ñaawlem di woo jeunes yi leen ñun ay jeunes lañ. képp ku fi falu sa mandat day jeex nga dem te du tee ñun li te du dee ñun dañuy dund kon lépp lu fi baax nañ gëm ne ñun ndaw ñi ñoo ko war a ñoo ci war a xëy di ci gont lépp lu baax rek ñun ñoo ko war a defar daal soxna si. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal. di la bu baax a baax.